asalaamaaleykum waa Sen TV maa ngi bëggoon a ci émission bi ndax émission mën naa joor moom joor moom affaire bi doy na waar trop trop trop doyoon na ndax joor tamit moom dina xamante ne maa joor moom da bëgg biir xolam xëy na nag réeroo am rek réeroo am rek at maa joor tamit bëggatul gisatul joor stress bi nekk na si boppam loolu moo tax rek mu daal ni xaaral rek waaye dama daal naan moom. naa moom li def dara neexuma si dara neexuma si naa daara yi noonu rek naa job moom wax dëgg yàlla moom kuy xool si ay affaire am moom loo bëgg sax seetaan jéebe émission bi. salaamaaleykum waa na ngeen def daal man yokk bu leen ngeen ko jàpp foofu la naar moom. pàllank foofu rek mooy def yu bon moom dina mës a dina mës a feeñ maajoor bëgg na joor da koo gisul moo moo tax da koo gisul lii muy defal yaama yëpp waa jooju ndaw soosu nopp ko maajoor musul nopp ndaw soosu pour souffrir yaama ba mu fi jow looloo ko yóbbee lii tax muy def lii yëpp mais joor tamit dafa mel ni comprendre moom maajoor da koo abandonné maajoor abandonné ko incha allah lépp dina leer man daal joor neex na ma daal moo dugg sama xol. asalaamaaleykum waa Madior ak ci jàmm maa a nekk de warul mën a nekk am kenn ku ci war a comprendre Madior mais Madior tam li bëgg a jouer Xew TV na ngeen ci jàmm maajoor ak joor maajoor li muy def nanguwuma ko li muy def ne day rendre jalouse yaama pour xam fu joor nekk man loolu nanguwuma ko mën na ko rendre jalouse neneen mën na dem toog ci ay copain ba xaaju gudd mu ñëw wala mu fanaan benn kër mais pas muy dem rendre kee amoureuse ba pare tanobu ko loolu tamit àq la loolu baaxul bu dee copine joor bi moom bu dee moo ak moom rek maa du xam fu joor nekk parce que copine bi déjà du ko jéppi fugu ko waaw asalaamaaleykum na ngeen def ça va man la Youssou Ba depuis Paris bon maa ngi seen émission bi vraiment seen série Madior ak Dior bi ba tamit macha allah chapeau ko vraiment rafet na jaar na yoon au début nag daaw ma ko suivre dafa dem ba yàgg rek affaire bi ma seet ci benn ñaar ñett rek léegi ma abonné franchement macha allah chapeau quoi ca kaw ci kanam.